yàlla julli ci sang bi muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ziar di nuyoo jaarale ko ci imam ak chef de village jël nuyoo bu tedd teg ko ci loxo sëñ Mouhamed mu teg ko ci famille maam xaar Diop fa tabarakallah ak sunu mbokki daaru Diouf fi ñëw ci turu sëñ Modou Mbène tabarakallah dëkkuwaay bi rafet na waa fàttali ngeen ko te loolu ca mag ña la woon di nuyu bu baax suñu rakk suñu collègue le maire Bara jàmbaar la nag nee ñu sëñ daara bi ci néeg bi xàmmee na dongo yi ñu ci neex baat ndax lii yombul boo dee seet ci département bi mbaa ci région yi sax communes yi ci am ñaari euh, poste de santé en général dañuy am benn poste de santé am ay case de santé mais am ñaari post de santé bi bariwul kon Bara ñoom ngi lay féliciter di la encourager ah lii mbokk yi wax nag ñun gëm nañ ko ndax suñu wóllëre ak dëkk bi ëpp na ñaar fukki at te musuñu ma wax lenn lu ma gisul sëñ Abdou Aziz Al bi na yàlla xare ko àjjana ñaari dëkk la ma daan jëkk a gën a dénk mooy njóob kër xaar ak baal jóob gële ni loo man loo mën nanga ko def ndax nit ñu baax ñu tubankala dem na waaye loolee wax kàddu googu ma dénk ko yàlla xam na ni wuutalewu ma nag ak sama dëkk yi nekk ci commune ba tax na li ngeen wax mu di jafe-jafe yoon weeg courant bi xam ngeen ni courant bi noo ngi si Sénélec yónnee na rek ci fan yii allah maag baara daañu ci ànd rawatina nag tey dañu waxtaan semaine bi passé ñeenti maire yi nekk ci arrondissement bi di Moussa Ndiaye bu Mboro ak Magor kan ak moom Baara ak man ñu ne nag li ñu seq arrondissement bi tey war nañoo gën a lëkkaloo nu créer suñu association des maires pour le développement de l' arrondissement samedi bii passé la journée la ñuy yéen kon maa ngi wax sama tur mais mën naa wax ci cadre boobu yóbbaale aussi les autres maires maire Daaru Xudus ak maire Mboro ndax li ñu fa tënk mooy lépp lu ñuy doxati nañ ko ànd ndax lu kenn man ñeent ñoo ko dàq te kenn ku nekk am nga foo ma kon cadre bi naa ne ba keroog ñu àgg ci président Macky Sall lépp luñ ko wax ni ko lii mooy njëriñu askan wi danañ ko déglu ndax xam na ni li ñuy wax yépp suñuy bokk la ñuy waxal askan wi la ñuy wax kon noo ngi leen gën a dénkaat baal jàmbaar la de am na yéene te xam naa ne lu mu mën dina ko def meewaan dina ko def ci fii ci Ndiob fii nag dëkku diine la dëkku aada dëkku ñaan la fa tabarakallah yal na yàlla def ba wóllëre bi nu am am ko ak yéen nu am ko ak baaram yi bu leen nu fàtte ci ñaan ñaanal réew mi nag ndax réew mi soxla na ñaan yal na yàlla def ba euh, Covid bii feebar bii fi nekk yaakaar nañ ci seen ñaan médecins yi jàmbaar lañu lool waaye feebar bu amulee garab euh, ngay xeexal koo xam ne gisoo bu ñu xeeb ñaanu mag ñi pour ñu xëy xëy ni affaire bi jógee fi kon noo ngi sàkkuwaat ngeen ñaanal réew mi ak inondation yi maanaam ndox mi yàq ah mbiru yàlla la moo gën a ñu ni ndox amul te tey nag yaakaar am na ci nawet bi fa tabarakallah ñoo ngi nuyu également euh, suñu xol dañ kontaan nañu bari engagement mais dañu ñaanoon ne lu nu xat xat xat ñëw teewee bés bi wala leen ni xam ngeen daaw ak daaw rek naa fekk baara ñëw ci xew noo ngi leen koy gën a dénkaat baara daal noo ngi leen dëkk bi ah ndaw nga wante xam nga yoon wi jaar ba am dara ndax léegi kat kenn du toog fa nga toog rek du fekk la fa da ngay di wuti di indi nun nag li nu fi bàyyi yoon woowu nga jaar loo am bokk bokk yi te loo amul dem wuti ko indi ci du ay lañu bokk juróom-benni mandat bi ñu fi ñëw fi 2000 góor gi dañu doon demal rek waxuma bii waaye dangay ngay toog ba doyal fi ne nag doyal nañu si mandat wax dëgg yàlla. góor gi loolu ñaanam gis nañ kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ah suñu Modou ñoo ngi dem waaye bu ñu sañoon dañuy toog ba mu jeex waaye engagement yi la rek waaye sant nañu yàlla bu yàlla mayee nu fekk ah jigéen yi ak xale yi réew yéen yaakaaru ëllëg ah ni ngeen taxaw itam nag muy dëkk boo xam ni kilifteef am na fi ndax loolu moo tumurant bu xale yi nangoo déglu mag ñi ah loolu xel mën na caa daal te gis ngeen li xew ci àddina fu ne lu ne la ñuy dégg lu ne la gis ci réseau sociaux ci internet waxi kese nag taxul réew mu jëm ci kanam da def la nga mën li ci des ah nga sàkk ko nag waaye lii seen responsable des jeunes wax léegi que ni dëkk bi kuréel yi ñu am jigéen ñi ak xale yi xaar ñu jëkk kenn lu ñu mën ñu ngi koy def li leen ëpp doole rek ñu dem wuti sàkk ko. loolu lu la boo xëy Sénégal yëpp war nañ ko jàng noonu leen di gërëm di leen sant allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam jërëjëf du village yàlla dogal ñu yore baatam di ko doxal service am di ci teg mbooleem rakkam yi nga xam ni ñoo topp ci kanam ci ginnaawam ak mbooleem waa dëkk bi yëpp di ci teg di di siyaara suñu xalifa sëñ Thierno juuf moom mi nga xam ni ma nekk xalifa Maam Mor Diouf Diatty ak mboolem kilifa diine yi fi rot yëpp ñoo ngi leen di siyaara di leen balaax te di leen balaax di ci teg ki nga xam ni moom la fi sous-préfet yabal muy Moussa Jaxate mu nekk kenn koo xamante ni kenn la ci ñun kenn la ci dëkk bi ku xam Jaxate xam ni am na taxawaay ci Kër Xaar Jóob lépp loo xamante ni yaa ngi koy lijjanti biir miwaan jaxate bu ko xesee yëg amatul jàmm tànka loola réglé kon ñu ngi sant jaxate bu baax moom la fi sous-préfet yabal jokkoo nañu démb mun ma incha allah bu ma mënee ñëw dinaa ñëw su ma mënul ñëw dinaa yabal kenn ci kër gi yabal na monsieur jaxate maanaam monsieur le Baara Ndiaye moom mi nga xam ni moo waral dëkk bi moo waral tey lii ndax nekk na koo xamante ni nii tey waa dëkk bi yëpp ñoo ko war a sant ndax dañuy wax ni Baara de bi nga xamee ni yàlla dogal na mu ñëw ci commune bi gisee bi njëkk a gisee ak moom lam ñu wax mooy duma leen dig wante dinaa def kër xaar Jóob loo xamante ni nii ñépp a koy gis loola de def na ko tey jii naa ni ñun bi ñu commencé yor service bi léegi mën naa ni quatre-vingt-quinze laa jëkk a commencé doxal sama papa service bi mu dem Méouane ak ñëw booba ba léegi maanaam mais ku nekk jaar na Méouane kuy nekk jaar na Méouane parce que Baye Alsane Diop laa commencé dem sama papa di ma takkal su may dem ba tey jii wante lii mu ñu defal de wallaahi benn maire mosuñu koo defal yàlla xam na ko ndax mën naa ni baaram yi amul gàmm gu mu sa taxawal te baara indiwul fii aw nag suñu mbaar mee ca penc ma yaakaar naa ni moo gën a yaatu baas yi te ciment moo ci jëkk kon wax dëgg yàlla baara ku ñu taxaw la ku ñu ku ñu ku ñu bëgg dëkk bi la lam ñu waxan ci dëkk bi wax dëgg yàlla def na ko kon li ci des waa dëkk bi ñoo ko desal kon baara ñu ngi lay sant di leen wax dal leen jàmm di leen wax ni Kër Xaar Jóob ma ngi nii seenub dëkk la yéen yéen a ko moom Kër Xaar Jóob nag loolu tax yu bari mënuñu ko tënk mënuñu ko wax wante kon danañ ci wax lu baree baree baree bari kon sëñ Baara sëb dëkk a ngi nii lii njóobeen soxla wax xam nga ko yaa nga commencé def wante des na yeneen yooyu nag Baara duñ la ko wax xam nga ko xañ na ñeneen ñi nga xam ne ñoo topp sama ginnaaw dañ ko gën a leeral kon ñu ngi lay sant di la dalal jàmm di la xamal ni Kër Xaar Jóob daal ñun amuñu sa pay Kër Xaar Jóob amuñu sa bay ginnaaw bu loolu jàllee itam ñoo ngi sant ñi nga xam ni ñooy waa dëkk bi ndax ndax mën nañu lii ñaari fan ci lañ ko yëg parce que altine ci lañ ko yëg lu leer naññi ni dañ ko war a ubbi wante bi biñ ko yëg wëree wax ko mag ñi wallaahi mag ñëpp a jóg taxaw nii nañ fexe ba bis ba lépp rafet wallaahi mag ñi ñu leen di xamal seedeel ni lépp rafet na lépp rafet na lépp loo nga lu ñu yaakaar ni dinañ xaw a am taas ci bis bi lépp génn na kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di sant ndawu dëkk bi ñoom ñëpp taxaw nañu ku nekk fa nga war a taxaw yaa ngi fay taxaw lépp loo war a def yaa ngi koy def kon ñu ngi sant mag ñi di sant ndaw ñi di sant jigéen ñi di leen xamal ni daal ah sant bu paase wan bu fekkee mën naa paase jërëjëf dañ leen wax lu ëpp jërëjëf comme nag temps bi gàtt na dañu yem foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka Habib Diop mooy jël kàddu ci kaadaru lenn ci ndawi dëkk bi ak organisation bi fi mu jaar ba ak si fii ñu tax diree ko ci ñi ngi koy door a am ci mbaaxu yàlla ak barke xaar jub lañ ko amee bu ñu waxee loolu nag tegtalewul ni ñi fi baara fekkan wala ñi mu fi remplacé ñooñu dañoo liggéeyul ñooñu liggéey nañu mais fasu fas yoo fas luñ daw daw du tee nag ruccee ci rucci man fas yi luñ daw daw du tee am na fas woo xam dañ naa mang ca kanam donte le fas yëpp a ngi daw waaye fii fi kër xaar Jóob baaraang ca kanam bàyyi ba de bàyyi mbay junj na leen ko ci biiri wax dafa cof wax ji kere bi ñu baara jëkkee recevoir toog mewaan maa bokkan ci délégation Baye Mbaye ak Baye Badame ak ay quelques notables ci dëkk bi bi ñu toogee waxtaan ak moom ba pare bi ma jëlee parole dama ni ko ñun suñu kër yi suñu kilifa al amin daf ñoo wax ni daf ñoo jàngal te lim ñu jàngal dañ koy jëfe daf ñoo wax ni kilifa soo ko amee doo ko yót ay njàmbat da nga koy yót bilan da nga koy yót bilan ñun kat def nañ lii def nañ lii def nañ lii def nañ lii la ca baaxul mu jubbanti ko la ca jub mu mu wéyal ko ba ñuy waxee ba pare ba ma jëlee parole defal ko bilan kër xaar jóob fi ñu jaar ak suñu moyen bopp fi ñu jaar ba taxawal li ñu taxawal lépp ba ma ko ko waxee ba mu jëlee parole dani ma kër xaar dinaa fa def lu fa kenn musta def ba ma ko waxee directement laa ne ko yàgg nañ koo dégg yàgg nañoo dégg wax yu mel noonu yàgg nañ gee dégg dafay tegtal leen yàgg nañoo dégg ay dig te dig yi ba tey sotteegul léegi nag moom comme yàlla dogal na wax na ko def na ko defati na ko léegi nag bu jaree takk rajo dañuy takk rajo ni baara la bu jaree takk rajo kër xaar day takk rajo ni baara defal na leen lu jar wax jërë ngeen jëf pour gagner rek pour gagner temps rek sëriñ Abdul Aziz Al Amin moo ñu waxan ni nit heure boo ko defalee teraanga mu suul teraanga ja nee na taxawal ca teraanga ja nag ni diw defal naa leen teraanga bii dañ koo bëgg a suul teraanga bu toll nii suñu ko Baara Ndiaye defalee waa Kër Xaar Jóob waxuñu ko kon ak coxor dugg nañu te bëgguñoo soxor ku ko def ku ne ku ko wax la bëgg sëñ Abdoulaye rahimahullah dafa waxan ni duma ma xeebal kenn ni jëfam waaye nag duma gërëm ku ma defalul dara teg ca ni doon unhu doy na cëm ngërëm ku ni nu doon naa la bëgg a yàkkal bii ñu ni la unhu ku ñu defal ñu gërëm la kon baara li ñu lay ñaanal yal na la yàlla defal sutura xam naa wax ji mënoon naa gën a gudd waaye su ngeen déggee ni may waxee sax ngeen war a xam ni pour gagner temps bi moo tax ñuy waxee noonu pour daal seedeel la ni njaboot yi nga am fii ci kër Xaar Diop mos naa la ko wax wax naa ko sous préfet nee naa ko duñ la jël kenn ci bureau at ba at benn yoon nga leen di recevoir gàmmu joobeen bu ñëwee mënuñoo ñàkk a ñu ñëw wax la ko su jàllee duggaat nañ seen ruq soo leen gisaatee bis baay bëgg a ñëw li ñuy faje seen soxla ni ngay def ba faj sa soxla ni la ñuy def ba faj seeni soxla yittey dëkk bi nag dañuy ñëw ñëpp di ñëw di sàkk ñuy ñëw di sàkk mënuñoo bañ a def loolu moo tax waaye kër xaar jëluñ kenn ci bureau pour am wayaan wala am ñaan wala mënumaa ñàkk nangam wala sama bis ba ni dëkk yépp di def it nag dëkk boo dem fekk fa fukki bés ak juróom kër xaar benn bës la ñu am bu jàllee ba déwénati ba déwénati benn bés lañ am muy gàmmu kër xaar jóob bu jàllee ba déwénati mënuñu leen koo bañ a seedeel ndax yéen fi nekk suñu ay kilifa su ko defee ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp kàddu yi daal ngeen xam ni lépp lu ci dëng. tudd Cheikh Ahmed Tidiane Sissar di infirmier chef de poste Mboro 1 baax na nekk ci district sanitaire bu Tivaouane donc di ziar bu wér suñu kilifa diine yi toog. di leen ñaanal yàlla yàlla guddal fan wi dëgëral cër yi macha allah vraiment suñu kilifa diine kenn mënu leen fay di ñaan toujours seen ñaan sàkku ci yéen ñaan am na solo gannaaw kilifa diine yi <coughs> di nuyu di ziar monsieur le maire monsieur Bara Ndiaye naam xamuñu ko du suñu maire. mais li ñuy dégg ci moom macha allah rafet na du bu baax encore kilifa aada yi nekk fii yëpp di nuyu aussi sama collègue chef de poste yi fi nekk muy Djibi muy mànga muy ICP Diouf de Mboro 1 vraiment ñu ngi may cëral mais seen baax rek la. di nuyu bu baax suñu mbokk soxna yi di nuyu bu baax soxna yi am na solo di nuyu bu baax soxna yi damay yi ñoom ñoom ñooy samay xarit ñun ci bërëbu fajukaay lañu nekk muy kër docteur mais le plus souvent ñoom la faral di gis suñu feebaree ñoom lañuy gis su sëñ bi feebaree ñu indi su doom ji seweree ñu indi ah su sët bi feebaree su soxna si tollee diggante ñoom la ñu gis ah non ñoom laay gis ñoom ñooy sama xarit di leen nuyu di leen ziar di leen gërëm <laughs> suñ jógee foofu jeunesse jeunesse su Kër Xaar vraiment di leen jaajëfal bu baax seen liggéey rafet na. comme ni ko président Allé waxee rek eh, liggéey bi rafet na maam ko ngeen nekk benn xam li ngeen bëgg di di dox yal yàlla motali yal na yàlla gën a aar gën leen suturaal monsieur maire di la gërëm bu baax franchement voilà lii dañ ciy bëgg dañ ciy kontaan lu am solo la santé de proximité kër xaar ñëpp xam ne ni dafa xaw a ruqe sori na Daaru Xudoos sori na Mboro sori na Ndombil te wérgu yaram mook doomu adama ànd da ngay wér di tawat di tëdd te soo tawatee il faut nga soxla faju te loolu soo ko amul à mais coono day dugg il faut nga dem ay kilomètres pour mën a am pour ñu mën a satisfaire ce besoin donc monsieur le xalaat xam ne moom daf fi nekkal askan bi mu xalaat ci loolu ba ñëw jëmbal lii taxawal lii duñ mun vraiment di ci kontaan di ko rafetlu di la ci félicité macha allah dañ ko ci félicité parce que nasaraan bi mi ngi wax ne certes la santé n'est pas tout mais sans la santé le reste n'est rien man dama koy dëggal donc santé dafa am solo wér-gu-yaram dafa am solo donc lii suñ ko fa tabaxee pour dëkk bi mais lu am solo la lu rëy la vraiment dañ ko ci félicité ko di ko ci sant ah incha allah dinañ transmettre à notre xel day fattu parce que certes collègues yi dañu baax rek jox ma kàddu gi mais aussi am nañ kilifa en l'occurrence le médecin chef du district de Tivaouane monsieur docteur Camara moom moo irif district bi yëpp donc li ñuy wax aussi ci turam lañ koy waxee parce que ñun ay ndaw rek ay ndaw yu tuuti lañu vraiment lii dafa am solo pour askan bi. maire bi imaginer ko dox ci ba taxawal ko ñu mun def lu dul rafetlu ko waa mboora xam naa ci dara samay mbokk lañ waa euh, Kër Xaar fii ak Mboro xaw na xëcc xaw na xëcc fii ak Daara xaw na xëcc certes fii ci rayon d'action Daaru Xuddoos la bokk mais aussi comme li ñuy wax rek euh, nit ki kenn mënu ko canaliser na ko fii ngay fajo wala fii ngay fajo donc dañ daan ñëw ba Mboro te loolu day métti lool day métti lool donc loolu vraiment def naa coono boobu suñ ko tegee waaw dañu def dul sant di ko gërëm ah di ko ñaanal yàlla comme ni ko nit ñi waxee rek vraiment lii rafet la dañ koy gërëm di ko sant et set certes maa ngi ci district Tivaouane entre collègues c' est pas ici seulement ah Ndombil parce que nekk naa chef de poste Touba Fall les temps mais Ndombil c'était une case de santé moom laa fa bàyyi woon dégg naa léegi érigé nañ ko en poste ba monsieur Manga moo fa nekk te loolu def naa yow mi yaa ko réalisé ah vraiment tàcc leen ko bu baax waaye jàmbaar la de ngaa xam un dama fàtte mais bi ma nekkee chef de poste Touba Fall au passage euh, euh, sëñ Ndama Fall ñu koy ñaanal Euh, suuf sedd ci kawam yal na ko yàlla xare àjjana moom laa fa nekkaloon ba ma fay nekk ndombil kaasa woon maxe euh, tund tun kaasa woon ngaaxam kaasa woon ndànk kaasa woon ndandantu kaasa woon suñ demee ba ndombil nekk pos bexe village aussi nekkaat pos mais kooku day enrichir étoffé ah structure yi nekk foofu paj mi gën a jàppandi pour askan bi parce que ñu ñëpp yëngatu bi yëpp aussi ci day dellu ci askan bi da am solo la donc vraiment kooku suñ déggee réalisation yooyu yëpp et puis en quelques années en si peu de temps dañu mën def lu féliciter ko encourager ko ah monsieur Bara vraiment euh, tous nos encouragements tous nos gis nañ ni ngi leen ni ñu jàppale agents yi rax ci dolli structure taxaw na mais n'empêche aussi yaa ngi jàppale yi parce aussi lu ci am solo la agent bi su fi nekkee xelam dal mu mun a liggéey au profit de la population et puis lépp delloo ci askan bi ah, vraiment di sant di gërëm encore une fois di rafetlu bu baax jotaay bi ah, sàkku bu baax ñaan ci suñu kilifa yi kilifa diine yi vraiment di sant pour ne pas guddal di sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu